dimbalante am na solo lool ci jamono ju ñu mouvement bii di ànd qui s'active sur le social éducation et environnement mais aussi pour les collectes des dons pour les hôpitaux d'Aras, mosquée, juma école prison pouponnière et internat donc yow mi may déglu si tu veux vraiment aider N'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange monnaie sur le numéro 78 433 44 51 le mouvement MAD dirigé par le président directeur général M. Alisek. Ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51 Ande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 immobilier beaucoup de faits, Yen, 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër neex Sané moom mooy jëwriñu daayira xidmatul xadim bi nga xam ne mooy taxawal lépp luy dox fii ci kër gi mel na comme sang bi ñëw nag gane si ñu bëggoon xam euh, sang bi lan mooy ay tànkam ak nan la ko doon defee balaa ñuy jàllale jox euh, sëñ bi mu waxtaan ak mbooloo euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu dolli ziare bu baax a baax di jégalu baax baax ci kaddu yi kaddu yi moom kaddu mbégte la ak cant rek ak di ñaanal tam baax suñu kilifa yi mel ni suñu kilifa daa teew te wax dëgg yàlla kaddi mom dañ koy teunk rek defee mom di ñaan rek suñu borom yàggal bi fi la tande wër yàgg ñoo jité ñu top ci ginaam di liggéey sëriñ mi di sant baax baax tam Cheikh Thiono mi nga wax dëgg yàlla kóllëre yi nga xam mom la séko nak sëñ Lamine wax dëgg sa su nek mu koy sam ba tay ji sëñ murtala ne di sëñ Lamine ci ñun mu koy sam ba tay kon nak wax dëgg yàlla li mom at bu jot mu def ko ndax at bu jot mu and ak mbol bu takko takko lay and ñew siyaare ñu nga xam ne bés bi day doon bëss bo xam ñun ñëpp dañ koy bokk waajal nga xamne ne daanaka li ci ëpp ci mbooloo mi ñenn ñi ñuy tënk ci waañ beeg yëpp waye teewul dañ koy waj waj bo xamantene wax dëgg yàlla bu am solo ndax momit day jappal señ bi ngan go xamne at bu jot mu def ko ñin ñëpp mbokk taal beeg ñëpp teew ci waaw kon nag wax dëgg yàlla ñun mom dañ koy sant rek di ñaanal suñu borom dëggal go ginaaw suñu kilifa defé né mom dañuy tënk kaddu yi ne ñi ñu jégal salaamaaleykum jërëjëf cheikh bi rek jox ko mu indil ñu kaddu yi mu diké señ bi kaddu yi mu ziar ñu jox ko micro bi rek incha allah jërëjëf bismillahi rahmaani rahim qaala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli barkeb xadim rasul barkeb xadim rasul barkeb xadim rasul barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa ku baax ñu ngi lay ziar bu baax ñu ngi fii toog ci kanamu Cheikh Mouhamadul Mourtada moom Cheikh Mouhamadul Lamine Mbacké moom Cheikh Mourtada moom xadim rasul ñu ngi ñu ngi lay ziar bu baax te di la waral te di la xamal li nga xam ne moo waral daje bi li nga xam moo waral teewaay bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadou Lamine yàlla dafa def du daa ñëw ndar di fa seet fekk ay taalibam yàlla def jamono bu ñëwee nag dañuy dem ci moom léeg-léeg sax nu yëkkati ay kaset jox ko ndax cofeel gu mu am ci ñun ndax ku mu dégg mu jàng rek mu jàpp ne ñun ñooy yëkkati bëgg na lool fonk nu lool sopp nu lool sàmm nu waaw kon bu ndeyam ba suñu borom weddi mu jiitu ñi ci këru dëgg loolu duñ ko taxawoon ndax suñ ko taxawalee daf mel ni kóllëre gën a amoon dan doon ko ñàkk looloo tax ñu jël kóllëre googu ak ànd boobu yëpp ànd ko ak Cheikh Mouhamadou Mourtada mii moom sëñ Lamine looloo tax màggal gu jot suñu xëyee incha allah fii la ñuy fii la ñuy yendu suñu fi yendoo doogay dem ci bërëb bu Cheikh Ibra gis nañ nag ñaari at yëpp xaw na tardé sax ndax xat-xat yi nga xam ne mooy am ci kër ga sëñ naar mu baax mii ñu doon wax naan day waxtaan ak sëñ bi sax ngir ñu jéggal nu bis bi ak yooyu mën leen mën de fekk maa ngi dund fas naa ko yéene di ko taxawal ngir jëmmi borom Touba ak lu ma xat-xat ak lu mu metti métti ndax loolu kat dama ko fasatoon di kóllëre ak Cheikh Mouhamadou Lamine jagaleel ko bi Cheikh Ibra kon ñu ngi ñaan ci kattun yàlla ngeen jëmmi Sëñ Touba Cheikh Mouhamadou Lamine yàgg fi lool te ànd ak wér sama borom guddal fanam sama borom wéral tëri bàyyi fi njaboot gi nga xam ne ñoom ñu bi mbir tàmbale ñoom ñu fekke nañ ko kon looloo tax it ñu ciy jàpp saa su nekk kenn ko ci def sa dërëm rek ñu ngi lay sant bu baax mu jërëjëf wa salaam wa rahmatulah. mbokku taalibe yi ñu ngi leen di jaar yéen ñi nga xam ne at mu ne ñu ànd ak yéen ci naaj wi tàng wi ñëw fii ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine moom Cheikh Moutada moom borom Touba. kóllëre gi nga xam ne moom lañ fasoon ak moom kóllëre gi nga xam ne moom lañ fasoon ak moom di ko feddali ci bis bi nga xam ne moom lañ jagleel Cheikh Ibra at mu nekk ngeen ànd ñu ñu def ko. te at mu nekk buñ fi ñëwee dinañ yokk ndax ban tàmbalee ñëw tol ni nii waaye ne nu bàyyi ganaaw mat nañ ci mbooloo mi juróom-benn te loolu lépp yokkute la te yoonu Sëñ Tuubaa bi ni ma ko wax ku ci nekk te yokk wa xoolaate sa bopp Cheikh Mamadou Lamine mu tedd mu baax mi at mu nekkit mu ñëw ñun ñu waroon ko fekk fu mu ne mu bàyyi itam ànd ak njabootu ànd ak ñëw ñëw bu suñu biir gane leenu toog ak ñun yendoog ñun ñaanal ñu kon loolu it maa ngi leen di xamal ren ñu man la ñuy poñe gisuñu sëñ bi sëñ bi ñaanalul sëñ bi nangam nangam te te saal bu ñëpp xajunu fa loolu tax ma daan dugg rek am ñu ma àndal waaye ren ma ñaan ko balay sax bi ma ko ñaanee mun ma ah, loolu di wàññiwul dara kon loolu ñu ngi koy sant balay sax di ñaan ci kattan suñ Tuubaa ndax ñaara dox diggante mi sëriñ Tuubaa mën naa moom Touba mën naa xëy suba doon xarit général day day mujj kon ci Touba la bokk Cheikh Mohamad Lamine moo tax diggante mu

jërëjëf dimbalante am na solo lool ci jamono ju ñu tollu loolu moo wala rek mouvement bii di qui s'active sur le social éducation et environnement mais aussi pour les collectes de dons pour les hôpitaux dara mosquées, jumeaux, écoles, prisons, pouponnière et internats. donc yow mi may si tu veux vraiment aider N'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange monnaie sur le numéro 78 433 44 51 Le mouvement MAD dirigé par le président directeur général M. Alisek. Ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51 And Dibolente, Barna, solo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 immobilier beaucoup de faits, Yen, ngeen 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier Diaker, n'est-ce pas